واجعل بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم ba léegi kon ñoo ngi wéy ngeen ci bind yi di leen bayiloo xel ne rek incha allahu taala daara ji di daarul maarif al islamiya ca sunuy mbokki daara daayiratu muxaddamatul xidma seen ñu yor seen wàllu communication di ko amal di ko jaarale ci seen chaîne télévision boobu nga xam ne ñoo ngi ñaan mu dem bàgg ci àdduna sëpp dem ba ñuy ba tekki langue yiñ ci liñ ciy wax lépp di ko tekki ci langue yëpp euh, di ko amal muy GMT GMT yaakaar naa mooy canal waaw mooy grande mosquée de Touba bokk grande grande mosquée de Touba xanaat jaami al kabir bi tuuba ñu ngi ñaan xanaat ba tey bind yooyu rek ñoo ngi koy wéyal ba léegi tam ñu ngi ci bind fiq bi defe naa bind bi weesu yemoon nañ ci <coughs> ñu ngi doon wax ci ndox mi nga xam ne dañoo sib koy jëfandikoo yaakaar naa ñi ngi taxaw woon ci waraa ki doon yox tasalu fii ci bind ba wees woon kon tey ñi ngi tàmbalee ci wasu uru saari bi xam rek naan katub sàngara wala yaasu billahi taala charib fii nag wës nu mu baalaxa la la waroon a wax charaab xamr la waroon a wax loolu ci jublu sax laa bëgg wax kuy faral di naan sàngara lu bari wala yaasu billahi taala wala ku koy jëfandikoo ci noo koy faral di jëf jëfandikoo kum mën a doon wala iyaasu billahi taala moo xam ab jullit la wala kurutub jullit aw desam suur mooy desam desam ba tey dañoo sib ki di ko jëfandikoo boo amee mëneen ndox wa suur mooy desitu saari bi xamrin mooy koo xamante ni naan katub sàngara la waaye nag ku koy naan lu bari moo tax ñenn ñi dañ ko daan taswib sax di wax ne charab la war na wax waaye nag dañ ne ndara rek da wóor ne kii donte sax naan katu sàngara lu bari la waaye jamono yii ak gémmiñam laab na jamono yii mooy jamono yi muy naan ndox mi gémmiñam moom laabu ndax euh, laab na su boobaa wax dëgg yàlla kenn sibatu ko nag ndax règle bi tax ñu ko sib fii bañ loolu jaxasoo dara ak sàngara si ndax bàyyi leen xel ne sàngara sobe la kullu xam xamr ak euh, sàngara sobe la ca sàngara yit lu néew léegi lu bari la ñoo ci yem comme ni ngeen ko xamee ci xadis sobe la moo tax kon ku koy naan lu bari eh, saw desit dañu sib kenn nit di ko jëfandikoo nee naa la rek feeg mu lay wóor ne kii gi ñoom ngi dafa laab wa ma adxala yadahu fii ni ki doon ba tey naan sàngara fépp foo xamante ni dugal na ci cëram bu mu mën a doon cër boo xam ne ndax duñ ko wóolu ne cër boobee mën naa am eh, taq na dara ci sàngara sa te nee la sàngara sobe la te bu fekkee taq na dara ci sàngara si xam leen ne loolo sobe lay doon moo tax kon bu fekkee da cee dëggal cëram wala euh, da cee dugal loxoom loxoom da ko wax nii rek <coughs> waaye cër bu mu ci mën a dugal niki noonu ba tey benn la wa maa daxala yadahu fii bu fekkee da cee dugal loxoom wala benn cëram waaye nag ngeen bàyyi xel ne naankatu sàngara comme niñ ko waxee képp kuy jëfandikoo sàngara bokk nga ci ku koy jottali li ma jublu mooy ki koy liggéey wala yaasu billahi taala usine ba koy liggéeyee ki koy yanu di ko yóbbu di ko di ko libéré wala yaasu billahi taala ki nga xamante ni moo moo moo koy jaay ci bitig ba ñëpp rek seen atte benn la ci masala bu mel ni ndax ñii jëfandikoo sobe lañ ñu ñuy jonjoog sobe lañ kon ñoom ñëpp rek buñ ci dugalee seen benn cër rek nañ ko ndox moom sib nañ kenn di ko jëfandikoo ci laneen ndax wóorut wa maa laa yatawaqaa najasan min maa'in nekk doon ba tey desitu suuru mooy desitu loo xamante ni du moytandiku sobe aw udwi ma la yatawaqa najisa illa isa asura an taxtarisa kama qaala saaxibul kafaaf cërub lépp loo xamante ni cërub lu dul moytandiku sobe moo ci dugg yi dul moytandiku sobe bokk na ci njanaaw yi ngay romb bi ngay ñëw masalan picc yi ngay romb euh, ginaar yi ngay fekk ci kër yi muus yi ci ñenn ñi kër yi nga xam ne dana fay am xeet yi façon yu mel noonu xeet yooyu nga xam ne mënuñoo moytandiku sobe fu mu dugal ab cëram ba tey niki noonu sib nañ nga di ko jëfandikoo ndox mooma ndax wóorut mën naa am cëram boobu taq na sobe wala yu mel noonu alal mashhur waaye nag dañuy wax ne loolu feeg rek jafe-jafe amut. comme ni ko saahibul kafaaf tënke illa isa asur ata dara rek dafa doon loo xamante ni mucc ci jafe na mooy njanaaw yegg fa nga dëkkal loolu bari na lool ca mu ma ne ndox mënoo ndox muñ laal nga tuur ko su boobaa nag am na nga moo tax cheikh muxtasar xali sax wax na ne laa in asura al ixtiraasu minhu ko sib nag bu fekkee moytandiku ko dafa xaw a jafe yenn jinax yi kenn mënu ko moytandiku yenn nangam yi yenn nangam yi mooy moytandiku ko jafe na ndax da ngaa dëkk moom su boobaa kon moom day mën na dañu la koy jéggal loolu it biñ naan dañoo sib nga di ko jëfandikoo bu fekkoon ne dafa nekk ndox tax ñuy yax waaye nag bu fekkoon ne ñam la kenn du ko tuur moo tax mu ne aw kaana taaman bu fekkoon ne loolu ñu doon wax léppit aw ñam la déedéet nag kenn du ko tuur ndax desitu yooyu ñu doon wax bu doon ndox tax ñuy wax waaye bu doon aw ñam la kenn du ko tuur ndax liñ xaarandi biñ baaxoo wax rek ab taamu laa yutraxu bi shakk sikk sàkk kenn ci tur ndox ka mushammashin mi ngi andi tashbih ci yi nga xamante ni kenn sibu ko am na ndox boo xam ne kenn sibu ko mooy mu mushammash ndox moo xamante ni da ko weer ca jant ba ba mu tàng teg ci jant bi ba mu tàng pour nga jàppoo ko wala yu mel noonu kenn sibut ku koy jëfandikoo alal mashhur am na ñu ne dañ ko sib waaye nag sib googu du sibuk fiq du sibuk sharia sibuk karaaxa tabbiya la ndax lenn ci borom xam ne dañ dox ndox mu mel noonu boo ko tàngalee ci ndox ci ci ndab loo xam ne nu xaas armiñong la wala nangam ak nangam day waral feebar ci yenn réew yi ñu ngi ko sukkandikoo ci xadis boo xam ne sax wérut laa tafaali yaa xumayra fa innahu yurisul baras yonent bi day mel ne da ko tere woon Aïcha ne yow xumayra bul def nangam bi ndax day waral baras waaye xadis boobu wérut borom xam-xam yu bari sax dañoo teg dañuy daan faral di wax ne néew na xadis bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di di wooye Aïcha Xumayra xadis boobu nekk xadis bu wér la bëri wu ci daanaka xadis yi mu ko tuddee Xumayra yëpp waaye xadis boobu moom wérut ca xam naa rek sax mawdu lañ ko jàppe ñenn ñi mooy xadis bi nga xam ne gars yi dañ ko keree rek dañ ne nag bëri na ci xadis yooyu nga xam ne yonent bi di ci wooye Aïcha Xumayra ala kulli xaal ngeen xam ne ndoxum musammas muñ tàngal ci jant karaax gi ak lu ci a xew moom karaax kii la rek ñenn ñi dañoo jàpp ne day lor ki rek waaye nag xalil sax moom andiwut ne dañ ko sib dafa jàpp ne baax na wa in riad ala fihi waqta isticmaalihi umila alayha mu ne desitu naankatu sàngara boobu ñuy wax wala desitu kuy jëfandikoo sobe kooku ñuy wax wa in riad bu fekkee da ngaa gis da ngaa xam ala fiihi ci gimiñam fiihi mooy famun gimiñam danañ jàng wala boog du ñàkk jàngeen ci bindi naxu yi asmaul xamsa famun fi ne ci yaa lañ koy jarre fiihi mooy ala famihi fii fiihi lañ koy lañ war a wax ndax yaa lay lay jarre bu fekkee da ngaa gis ci gimiñam wala ci loxoom waxta istimaal yi waxtu wi nga xam ne yaa ngi jëfandikoo ndox mi wala ñam wala yu mel ne umila alayha ah desiti ñoo ñuy wax ñëpp nag moo xam ñam ñam la desel wala ndox waaye <laughs> waxtu wi ngay bëgg a jëfandikoo ndox mi xool nga gis ki ko desal ci ñooñ ñu doon wax noonu gis nga sobe nekk ci gimiñ nga ah su boobaa nag moom loolu leer na teel nee na umila alayha mooy na nga jëfandikoo rek li jaadu xoolal ndox mi rek attem ndox mi ci nga koy delloo bu fekkee gis nga ne sobe si soppi na kon bu fekkee ndox mi soppiku na jàppal ndox moom mu baaxatut ndox ndox mu soppiku la jàppal ne sobeeku soppi bu fekkee soppiku nag xàjjale ko bu dee ndox mu néew dañoo sib nga di ko jëfandikoo boo amee maneen bu dee ndox mu bari dagan na comme li jàll rek wa iza mata barriyun zu nafsin saila bi raakidin walam yataxayyar nudiba nazxun bi qadrihima wa iza maata bu fekkee dafa faatu dafa dee barriyun mooy rabu jéeri waxuma la rabu géej rabu géej mooy lu mel ne jën ak rab yooyu nekk ci géej yooyu moom jën wu dee ci géej ci ndox yooyu moom taxut di wax waaye bu fekkee rabu jéeri picc mu daanu ci dara dee jënax ju daanu ci dara dee ci wa iza maata rabu jéeri zu nafsin mooy boo xam dafa am deret nafs mooy dem mooy deret saailatun buy tuuru nafs loolay tegtale tasilu ala xaddi zubaati suyufuna wala wala nufusuna walaysa ala xaddi zubaati tasilu nafs fii mooy deret loolay tegtale waaye bu fekke rabu jéeri dafa dee biir euh, zu nafsin boo xamante ne dafa am deret saailatun buy tuuru waxuma nag kon rabu jéeri ju amul deret xam nga am na rabe jéeri yu comme yenn gunóor yi yenn soccet yi nga gis yooyu taxut di wax waaye am deret picc jinax nangam ak nangam yu mel noonu bu fekkee dafa dee bi raakidin ci ndox moo xamante ni ndox mu way la ndox mu bëriwut ab baaj ci la dee wala xawdu déeg bu ndaw boo xam ne man ngaa xam ne fii ay ñaari meetar déeg bu ndaw a ndaw nga xam ne bëriwut lool walam yataxayyar te soppiwu ko walam yu xayyirhu boog te soppiwu ko am bu ko soppee nag moom wàccal rek ca raxas foofu bu baax a baax waaye bu fekkee da cee dee ca soppiwu ko nu di ba sopp nañ nazxun bi xadrihima na nga nazx na nga tànq ca ndox ma bi xadrihima ci lu tolloog lafa fa faatu ak lu tolloog ndox ma rab wa da nga ko génne sànni bu fekkee ndox ma bari na ca rab wa ca dee xaw a rëy nanga nga tànq ndox mu bari mooy na nga tànq rab waag la ko wër lépp ci ndox tuuraale ko ngir dañuy ragal ne ba mi dee doon na nga gibiñ nga am yu cee génne di tuur wala yu mel noonu lii nag lépp mooy bu fekkee soppikuwut rek bu soppikuwoon moom baaxatut waaye bu fekkee soppikuwut kon sopp nañ nasaxun nga tànq ca ndox ma ngir génne waalo yi nga xam ne jàpp nga ne doon na génne ci gibiñam mooy la la nga jàpp ne lépp loolu am na ca rek tuuraale ko bi qadrihima mooy ci lu tolloog la fa dee ak lu tolloog ndox ma danga nga ciy dégg ne bu fekkee ndox mi dafa néew ca la ca dee nekk lu tuuti bëpp lu yem tuur ko bu dee safaan bi rab ndox mi dafa bari ca la ca dee ba nga tànk kii rabu da nga tànk ndox mu xaw a bari mooy la ko la la nga jàpp lépp kii dem na ci dégg nga nas mooy tuur loolooy wa in jaara taxayurun euh, wa jamat bari yun junafsun shaa'ilatun bilaakin wala muy taxayar nu diba nazhun bi qadrihima lii nag liñ ci jublu mooy loo xamante ni ba mu cay daanu dafa dee ci biir moo tax mu ne laa in waqaa mayitan waxuma nag bu fekkee ba daanu dafa dee ba noppi doo ko dugg ci ndox ma su boobaa moom génn ko rek sànni ndax boo gisee ñuy wax lee ne dafa dee ci biir ndax ba muy dee dana sonn di nga am yu génn ci gémmiñ gi yu mel na waaye bu fekkee dafa dee ba noppi daab tàbbi ca nga xam ne seen ngeen dafa dee ba noppi tàbbi ca loolu moom su génne ko rek sànni ndax ba mi dee buntam yëpp tëju na al mashhur wa in zaala taxayuru najsi la bi kasrati mutlaqin fastuxsina tuxuriya wa adamuha a wa in zaala bu fekkee walaw zaala wala wa in zaala bu fekkoon ne dafa deñ naji si mooy soppiku an ndox mu so mu sobewu woon najisi mooy muta najis la war na ndox mu néew wala ndox mu bari bu fekkoon da nga gis ndox ma dafa sobewu woon set euh, bool boo doon bëgg a jàppee bool bi daa sobewu woon bu yàgg nee nga toqus nangam sobewu woon na daal muta najis la woon waaye dafa yàgg-yàgg dem ba loolu deñ sobe sa deñ na caf ka amatu ca xet gi amatu ca melokaan amu ca li ko dindi ngelaw leeg la na daal moo tax mu ne walaw zaala taxayuru najis mooy mu tanajis dolli woo ca ndox dolli woo ca dara yàgg tax na mu deñal boppam wóor na lii daal moom kooku waxut fi du ko xam nee na vastoxsina taxuriya wa adamuha arjah vastaxsina lenn ci borom xam-xam yi rafetlu nañ toxoori yéene ndox moom laab na garaawut mën nga koo jàppe mën nga ko sango fatale ndax ay la ji taxoon ñu koy tere sobeewu la defoon ca sobeewu ga dañ na nag ca dañuy wax ne al illatu taduuru maa maaluliha wujudan wa adaman illa ji taxoon ñu tere ko illa dañ na nañ ko jëfandikoo rek mu jeex kon loolu lenn ci ba xam-xam yi stox si ne rafetlu nañ a taxuriya mooy ndox mooma nekk mu laab waaye nag wa adamuha mu ñàkk a laab nag arjaxu mooy li nga xam ne moo gën a wér ci lenn ci borom xam ba tey ku mel nii ak keneen ak keneen ak keneen ndax dane ndox mi daa sobewu woon ca sobewu lu sobewu moom ndox rek moo koy dindi te ndox woo ci ndox defoo ci dara xam nga ni mu meloon nag la mel loolu injaara taxayut najisi mooy mutanajis laa bi kasati mutlaqin loolu loo ci déggee bu fekkee da nga doole ndox nag kon taxut di wax su boobaa kon baax na surtout na nga doole ci ndox mu mutlax mu bari waaye nag lii li ñu wax bu fekkee dolli ci dara wala boog xanaa nga dolli lu tuuti ndox bu tuuti wan jaal taxayurul najsi laa bi kasati mutlaxin fastuxsina taxuriya wa adamuha arja loolu la saaxibul kafaaf di juñ ba tey wa fii injaal taxayuru bila zaydin bi mutlaxin mooy ni ko ba tey xilaaf dafa am ci ndox mi bu fekkee soppiku gi dafa deñ ci luun nga di ci dolli ndox mu tax waaye boo ko ci dollee moom bu baree laab na bu newee nañ xàjjale ndax ndox mi bari naam bëriwul rek wa qubila xabarul waaxidi in bayyana wajhan wala in bayyana wajha aw ittafaqa mazhaban wa illa fa qaalal yustahsanu tarkuhu ndox moo xamante ne dafa soppiku li ko soppi xamoo lan la nga xam ne ci information ci xibaaru nit nga koy mën a jëlee kañ kan ngay nangu xibaaram mu ne la ndox mi di baaxut bu ko bu ko lor baaxut nga jëfandikoo li mu wax ndax xam nga ba soppikoon say bët moom wala nga gis na soppiku na jarul laaj kenn waaye loo xam ne li ko soppi xamoo lan la gis nga mu xaw a zone nee nga waa lii ndax suuf si la nga xam ne da nga naan ah ndox mi de moo suuf si ànd ndox mi génn ci teen bi la lii moom baax na wala nga ne ah mën naa nekk leneen lu koy soppi leneen loo xam ne baaxut ba kan nga ci nangu xibaaram moo tax mu ne wa qubila xabarul waaxid ndox mu soppiku def na ci nangu xabaru kenn nit koo xamante ne daa nangu riwaayam ah, li ñu adlu riwaaya góor jigéen as góor kaneen wala mel noonu kooku bu la xibaaree ne la sobe na wala laam nangu nangu li ñuy wax su boobaa sikk sàkk amatul waaye nag nee nañ ci sàtt yi nag in bay na waccaxaa ñaar yi bu amee baax na na la leeral ni mu soppi ko ne la déedéet ndox mi de xonq na nii waaye lii du deret nangam la wax la leneen loo xamante ne lu soppi ndox la wala mu ne ndox mi de xonq na waaye nangam a ko soppi deret la wala nangam la dégg nga wala boog léeral li ko soppi waaye nag ittafaqa mazhaban yéen ñaar yéen a bokk mazhab su boobaa jëru ko ndax xam nga ne kii xam na li yàq ndox mi ci mazhabam mooy li yàq sa ci sa mazhab benn ngeen ca li ci am solo rek su boobaa ki lay jox xibaar bi na nekk koo xamante ni xam na li liy soppi liy yàq ndox ak li ko li ko li ko dul yàq wa illaa bu fekkee ne ñaar yëpp amut léeral loo ni soppi ko dana li baaxut rek wala nangam wala wala nangam baax na bokku leen mazhabit fa qaala xaala Cheikh Khalil bu ko waxee Maazari la ci jublu mooy Maazari ne nag ah su boobaa nag yustahsanu tarku sopp nañ nga bàyyi ndox moom bu fekkee leeral la ni mu soppi ko bokku leen mazhab Maazari nee na sopp nañ nga bàyyi ndox moom boo amee maneen alal mashhur wurudul maai wa wurudul maai ala najasati ka aksihi mooy ndox moo xamante ni dafa sopp ku sobe ci laabal ko ak ñàkk koo laabal ka aksi yi safaan bi ñooyam moo xam sob moo sobe fekk si ndox ndox nga sotti ca dara sobe moom ndabul sobe nga jël may ndox soppi sotti ko ci ñooyam wurudul maa i ndox moo ci sobe ka aksi yi moo soo sotti ci ndox ñooyam loolu mooy lan ndab loo teg sotti ci ndox euh, ndox nekk ca tuuti sobe sotti sobe soppi ko ci atte bi benn la da nga xaajale comme li xaar yi la doon wax bu ndox mi baree soppiwu ko ba dara néew ci kenn sibu ko bu ndox mi néewee wala mu soppi ko baaxatul bu fekkee soppi ko te ndox mi néew boppi dañ sib nañ nga di ko jëfandikoo boo amee maneen ak yu mel noonu safaan bi bu fekkee fekkoon sobee la moo toogoon ndox fekkee ko noonu rek wurudul maa yàlla najaasat ka si kon benn la bu dee lii mooy masabu Malik imaamu Shafii radiyallahu anhu nag dane déedéet lii balaa mën a nekk ci kaw ndox ma nekk lu bari lu ëpp xullatayni amma nag bu fekkee ne dafay tuuti ba néew yées xullatayni sobe su ca dem néew néew bu cay dugg rek doonte soppeeku ndox ma day yàqu imaam Shaafi'i mi ngi ko sukkandikoo ci Yonent bi sallallaahu alayhi wa wax ci benn xadis iza balagha al-maa'u xullatayni lam yaxmil xabas ndox bu fekkee àgg na ci xullatayni du dootu yanu sobe mooy ndox mi bari na waaye nag bu fekkee àggu ci moom dafa jàpp ne nga teg ndox mi nii sor sobe sotti ko ci tuuti na toq dong boo ko ci defoon même soppiku ko ndox mépp day ànd doo yàqu ci su kii boobu la sukkandikoo waaye nag imaam Malik radiallahu taala anhu dafa dafa wuuteeg imaam Shafii ci loolu wurudul maa yàlla najaasat ka si ndax moom am nay dalil yu bare bëri bokk na ci xadis yu bëree bëri euh, bokk na ci nag laa yunajjisuhu illa ma xayyara ndox li koy soppi rek li koy sobeel rek mooy li nga xam ne moo ko soppi ala kulli xaal ku ci nekk am nga sa dalil bu wër waaye xam naa loolu mat nay bàyyi xel bi nga xamante ni doon nañu indi xeeti façon ndox yi ndox mi laab ndox mi laabut ndox mi nga xamante ni di sib nga di ko jëfandikoo boo amee maneen day façon day indi nag yi nga xamante ni xeeti yu laab la jëmm yi nga xam ne dafa laab loolu la ci bëgg indi al façon attaahiru mun ne xeeti yi laab bari na am na jëmm yoo xam ne laab na bokk na ci maytuma laa dama lahu meddum lépp lu amul deret rek loola laab na loo xamante ni amul deret aslan nga xam ne yàlla defu ko ci xeeti gunóor yi nangam yi nangam yi nangam yi ba ci sax wala yaasu billahi taala jiit yooyu yu yoo xamante ni amul deret wala loo xamante ni dañ ne am na deret waaye deret ji da ko tuxal cosaanu wut ci moom lool ba tey bëri na weñ am na ñu ne amoon na deret amul deret waaye da ko toxal lu mel ne xuraat mooy yi daa nekk ci suuf yi yenn jur gi ak yu mel noonu benn la dañ am na deret waaye da ko toxal waaye nag kon meddum lépp lu amul deret medd ma laab na bàyyi leen xel nag ne laab na fii jubluwuñ ci laabu luñ mën a lekk ak luñ mënta lekk liñ mën a lekk ak liñ mënta lekk incha allahu taala danañ ko jàng ci baabul mu baax bi ñëw ci kanam waaye laab gi fii laabu lu aju ci julleeg jaamu yàlla boo doon julli luñ naan la laab na bu nekkoon sa poos ndax sa julli gi baax na wala baaxut foofu côté boobu lañ ciy waxe fii waaye waxewuñ ko nag ci côté laabu lekk ak ñàkk a <laughs> ñàkk a lekk façon laabeen woowu la ñuy jàngale fii laabu ndax nit ki mën naa jonjog moom bi mu julli ndax nit ki mën na cee toog bi mu julli bu noppee ñu ne sa julli baax na ak yu mel noonu foofu façon laabeen googu la ñuy wax kon at taahiru lu laab bari na ay xeet yu bare bari la bokk na ci maytu maalaa dama lahu mooy méddum lu amul deret loo xam ne amu ko woon aslan wala loo xamante ni da koo am waaye da koo toxal alal mashhur masala mu xaw a gudd la moo xamante ni kii bari na wal baxari yu nekk doon ba tey méddum géej mépp laab na walaw taalat xayaatahu bi barren doon sax rabu géej googee dafa dund lu yàgg yàgg ci jëri ji rabu géej gi bari na ñoom borom xam ne dañaa xam ne da walaw xinzuuruhu aw aadama yihu doon sax mbaam xuuxum géej la doon sax doomu aadama yi géej amoon na waaye laab gi wax naa leen li muy tekki rek laabu lu ñu lekk ak lu ñu naan danañ ko jàng incha allah ci kanam laabug julli la ñuy wax fii kon rabu géej yi masalan jën meddam rabu géej la ak rabi géej yëpp kii mais kii nekk ci mais ci géej yëpp rek bari na lool xam nga jëne ci gën a tuuti bari na lool seen medd baax na donte sax walaw taalat xayaatu bi bërin mooy donte sax dafa génn dund lu yàgg-yàgg ci jéeri ji doog a faatu alal mashhur na borom xam yu ci wute ku ma ak keneen keneen ak keneen am na ñu ne loolu dañ koy xoolaat bu dee daa dund yàgg ci jéeri ji duggaat ci ndox mi faatu fa laab na bu dee daa dund lu yàgg ci jéeri ji faatu ci jéeri ji baaxatul waaye ala kulli mashal li gën a wër baax na loolay wal baxri yu walaw taalat xayaatuhu bi barrin wa maa zukkiya lépp loo xamante ni rendi nañ ko loolu la euh, Cheikh Mahmoud Mawlud di naan attaahiraatu maytu maa laa dama la wal adami wa zaatu baxrin musjala moom yokk na ci rek ne meddum doomu aadama laab na meddum doomu aadama laab na danañ ko indi ci Cheikh Khalil dana ko indi ci kanam tuuti danañ indi xilaaf yi nga xam ne moo ci junj lan lay tegtale moom tam doomu aadama ju laab war nga ko laaj nag lu muy tegtal ndax xanaa nit du julli du julli moom yanu doomu aadama wala yu mel noonu waaye danañ ko indi ci na si ko dugal ci biir di ko fa jullee wala déet ak yu mel noonu danañ comme danañ ko waxaat jërul leeral fi lépp loo xamante ni rendi nañ ko laab na rend gu dagan wa juzuhu ak xaaj bu ci aju rek boo ko rendee xaaj yi ci aju yëpp yàpp waak yax baak nangam ak nangam ak nangam ak nangam yenn ci borom xam-xam yi nag dañ cee génne boo gisee mu indi lii dañ cee génne ne même am na yoo xam ne rab luñ ko rend rendi am na ci xaaj yoo xam ne laabut am na ñu ne maraara wextan wi nekk ci biir kii loo rend rend dara na nga dagg maraara wextanu sànni ko am na ñu ne xeeti zakar ak unsayeen yi nekk ci jur gu doon loo rend rend rend dara na ko génnee am na yu wax yeneen am na ñu ne mbuus gi nga xamante ni mooy ëmb doom ci biir jur gu mu mën a doon loo rendi rendi daar daar mbuus googu na ko génne sànni ala kulli xaal nii la demee rek uma zukkiya wa jus uhu dégg nga illaa muharramal akli lu ñu rendi nag nee na euh, ak xaajam yëpp laab na ba mu des illaa muharramal akli ndare lu ñu rendi ca bokk ci li araama lekk bokk na ci araam ak lekk kon moom su boobaa lu araam ak lekk rendi ko du ko tax a laabal alal mashhur lu araam lekk bari na kon yi araam euh, ñun ñu joxe ci misaal ci masab Malik wal xayra wal xamira bokk na ci fas yeeg mbaam yeeg kii yu mel noonu dégg nga lu araam lekk kon rendi ko du ko tax a laabal rendi ko du ko laabal dégg nga illaa muharamat akil alal mashhur Hmm. baax na mën nañoo yam foofu ci bind bi bu ko fee bu ñëwaatee tàmbalee ci lu ñu leen di ak xaaj yi nga xamante ni nekk na ci biiram ndax masala mu xaw a gudd la wa suufun wa wabarun wa zaxaburishin mooy yi nga xamante ni daañ ko génnee ci biir loo xamante ni dafa araama lekk naan la laab naag laabut waaye rek ñu leeral na ci li ñuy wax naan lu araama lekk rendi ko du ko laabal laabalug foofu jublu wuñ ci laabalug lekkam ak laab ak ak naan ndax lu mel noonu kum taqoon kum laaloon même boo ko rendee ndax loolu boo jullee sa julli dana baax kum laal si yére ndax laab na ak yumel mel noonu foofu la ñuy waxee rek almashhur waaye jublu wuñ ci eh, ci côté lekk ak yu mel noonu incha allahu taala danañ leen waxit ne luñ siba lekk incha allah atte bi yi nga xam dañ ko siba lekk mooy kam xeeti ndeg benteeg yu mel noonu ba tey ndax rendi dana ko amal njariñ wala du ko amal njariñ ndax de dana ko laabal wala du ko laabal waaye laab gi fii it comme liñ baaxoo wax rek laabu laal ko ak yu mel noonu tax ñeex waaye laabug lekk ak laabug naan comme li ñu waroon a wax rek incha allah dana ñëw euh, lii masala yu yu xaw a yu xaw a yu xaw a yu xaw a yaatu la yu mat a leeral laa dama la ni ko Cheikh Modou Mamour waxee wal adami wa zaatu bahrin musjala wal xayya wal xaarija minhu xayra xay in wa sadidin ba mu jeex Euh, niki noonu ba tey euh, oma zukki euh, illaa mu xaramal ak ak ak lu ñu reen di laab na bam mu des ak araama lekk bu dee makruhul akli moom wuute da ci am ndax ren di ko dana ko laabal wala du ko laabal waaye nag laab ki fi yëpp comme li ñu wax rek du laabu lekk du laabu naan laabu lekk dana ñëw incha allahu taala li dana ñëw ci baabul mu baax واجعل بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم